ñëpp dañ la xam sa diggante ak Wally Ballago Seck tey dañ la gis nga ñëw dugg gis moto bi ni nga doon def moto bi lan lan nga yëg tey waaw mais kontaan rek yu naaw ak xam nga sunu xel dellu ci démb xam nga ñun dëmb moo ñu ñor bu ñu xalaatee démb rek xam nga euh, lu mu doon rek day yomb waaw li ma la mën a xamal daal ba xamaloo ko mooy incha allahu li ma waxoon rek laay waxaat gisuma mbër mu yàlla bind ci kaw suuf bu mën a jàpp amaa Baldé daan ko amul amul xamaa nag peut leneen la ñuy wax waaye li ma xam a xam ko man mooy bu dee rek la mbëri mënu ñoo daan ama yaa ngi fi wala yaa ngi fan waaw da ngay déglu ñuy wax may wax jox la nga wax jox ma mu gaaw aca nekkoo fi de. Ah, mais dañu gis non waaw moo jaaxal <laughs> Ama Baldé moo mel noonu rab la ama ni lu ko yàlla bindee rab la parce que du barki Cheikh Ibra yàlla bindul mbër dalal combat bi dimanche la dalal xool ma lu ma la bëgg a dama gis euh, staff Ama ah, gars yi ko jëndal ñoom ah, ah, ñoom Ablaye Mbaye ñëpp ngi taxaw euh, gars yi dañoo ndelu lu xew. waaw xam nga Ama Baldé moom euh, ndel mi du hasard ndel mi du hasard roi bi buñ lay jox couronne bi pour nga mën ko teg mu dugg bu baax loolu kese la moo waral ndel mi. kon couronne bi la ñuy préparé moo loolu dañuy bañ mu daanuwaat dañuy bañ mu daanuwaat dañ koy defal ndel seere ko ba mu seere nga xam ne keneen keneen dootu ko mën a yëkkatiwaat ci boppam boobu. ndel rek moo mën a téye yenn kuréel yi <laughs> waaw ay caaxaan. waaye de waaw man maa lay nuyu. maa ngi say baax waaw mais ndel bi ndel bi sëgal sëgal sa bopp ama xoolal ndel bi wax ko ndelu. ama ndel ko ma ama. ama moo ma nel. gani ama moo ma wat tey suba laa watu dégradé dégradé fay 2000 ama ñoom ma ñëw wat ma ama moo ma wat nii. lan la doon watee lan la doon watee. ak ak ak leen set loxo ni ba mu koy gëj a wat nga xamul kañ la waaw ama moo ma wat lii waaw. kay kay kay ñun ñëpp ay doomu aadama ñun ay Baay Faal lañ ay Baay Faal la yor yorul ay kolosaar voilà ah ni ngay taxaw ambiance baa ngi noonu ñu ngi nii bunt kër Ama Baldé eh, sëñ bi loolu nga ne yow Ama lam seen la la Ama waaw waaw Ama moo wat nii ab lam seen dama lépp lépp ngir moom Ama li mu li mu mën def bu am ndam dañ koy def. mais dañu gis pression bu doy waar affaire yi gars yi ne ku nekk si stress bu xew. dara jàmm rek dañu am confiance rek xam suñu mbër ama dimanche bi la doon moom la ko yaayam jur. waaw ah, mais mais mais lii lu lamb open press la ah, lii lii lii bu lamb ñëwee fu ñu jëm. waaw moo ma jaaxal ama moo mel noonu rek ama boo ko fekkee si koñ bi da nga yaakaar ne moo moo xale ndaw yi juddandoo ama dafa sooy boppam Baye Fall la waaw te ñun moom la ñuy wër si moom ama Baye la ama amul kenn ak ak ak kenn kii ma yee mbëri yooyu mbëri nga pour gis sax problème mais ama amul ah boo ko seen am mooy xale yi ànd dañuy pédicamp dinañ dañuy deux camp waaw di ko ñaan gas bu leer alors ba léegi mbokkanteelu lu Sans Limites yéen a ngi en direct ci Sans Limites TV donc comme ni ma leen ko waxee bu leen bëggee bu leer image bu baax fii ba open press bi di jeex ci Sans Limites TV ngeen ko mën a amee ndax euh, daanaka nag matériel yi sax lu muy génn bariwul ndax euh, la muy jar dafa bari loolu macha allah mais bés bi moo toll ni mel euh, xew bés bi moo toll ni mel open press bi moo toll ni mel mais également Ama Baldé également moom moo toll ni mel loolu moo tax dañuy jël ambiance Mouhamed dañuy jël ambiance jël réaction doxantu nga xamante ni ñoom ñooy fan si supporters yi gis ngeen ñoom ñëpp ñu ngi noonu voilà mbokk internet yaa ngi mbokk internet comme ni ngeen ko gisee euh, Ablaye Mbaye ngi noonu allo ça va sant maa ngi ni ko gisee ñu ngi bun kër Ama Baldé mais Mouhamed Mouhamed maa ngi gis ay dàll tig yu bees tax ñu tegale ko mais tig yi Mouhamed fan la jógee Fall ñu ngi lay nuyu. yàlla li mu may su ni ñu teree tàggoo. arbitre génnee loxo ku la eh, moom wat. authentique dinaa daal dinaa indi ndam. le six la wax bi nag. barki sëñ bi lu tax nga le cinq la le six mooy wax ji damay daan le cinq le six boo ñëwee dinaa la may ay image yu bëri image yu bëri laa lay may man du ma nit kuy wax di insulter nag Modou Lo maa ko merci beaucoup alors mi ngi noonu mbokk paan yaa ngi noonu euh, paan yaa ngi noonu paanu ndox yi nga xamante lañ ko teg buntu kër Ama mu mel ñoom ndox bu bëree bëri bokk na ci sarax yi bokk na ci li nga xamante ni voilà war nañ ko génnee ci euh, buntu kër gi comme ni ngeen ko gisee mbokk internet di 100 minutes voilà mi ngi noonu dañuy continuer di jël réaction mais dañuy continuer également di jël ambiance bi lépp li nga xamante ni moom moo fi am donc voilà gis ngeen xale yaa ngi noonu mbooloo bu baree bëree moo fi nekk moo tax sànq ma leen doon euh, leen ndax lii est-ce wala open press la ndax ñu gis fii euh, ci buntu kër ki nga xamante ni moom mooy Ama Baldé dafa commencé euh, jéggi li nga xamante ni moom mooy voilà Pathé Baldé yaa ngi noonu Pathé Balde moo nekk noonu ci kaw Mouhamed gis nga moom sax dafa ndelu Pathé Balde dafa ndelu xool ko mi ngi fëgg ndel bi <laughs> borom amul yooyu <laughs> voilà mi ngi noonu waaye mais dafa mel ne gàll bi nag ñëpp ñëpp a ndelu góor ñi dafa mel ne ñëpp a ndelu parce que démb léegi maa ngi gis statut gars yi bëri euh, ndelu kon xam naa du ñàkk ay tegtal la mais sànq tamit également dégg ngeen am ku ne euh, couronne bi pour nga teg ko sa bopp foog nga ndelu ndax boo ndeloo dina mën a dugg Ama Baldé di bëree ki nga xamante ni moom mooy roi des arènes di nga xamante ni moom mooy Modou Lo watu woo non waxtu bi après la ci kanam incha allah. lépp jàmm est-ce que. mais préparé mais maa ngi laajte sànq quoi mais affaire yi lii du làmb quoi open press la. nii xam nga ndox bi sarax yi nii lan la. waaw bés ngeen tiit wala la bés bee toll foofu tiit. waaw kon kon xel xam ngeen ne xeeboo leen waa ji. waa ji non xeebu ñu ko champion la mais dañoo ko rek xam nga lii yëpp làmb la quoi. voilà c'est normal waaw ah, di am constaté suñu mbër. xam nga pare pour gunge ko ci open press bi ba dimanche incha rendez-vous bu stade la quoi. rendez-vous stade la. Ah. daa bëri rek. ok euh, bi Ama Baldé doomu Pikine la man damaa fier ci doon doomu Pikine fier ci doon kii. ndel woo ndel woo. ah non damay ndelu eh. ama ndelu la ndelu eh damay ndelu lu ko jar eh, lu tax ndelu eh non non ma ndelu xamal du ma ndelu parce que ñun ñëpp a ndelu xoo boo xoolee Pikine ñëpp a ndelu man damay ñëw damay ñëw léegi mu ndel ma Ama Baldé nee naa tey ñe c'est Pikine a génn man génn naa artiste yëpp a génn jàppale Ama Baldé parce que Ama dafa doon koo xamante ni non te gis non maa gis ay ndelu gra boobu yu ndaw ay boobu ngande eh, ay bopp yu oval. Modou Xaban Pikine. Ah. eh ñëpp a génn mobilisé wu tax. non damay ndelu. damay ndelu te ngay ndelu. gars yi tey eh eh gars ah, de bal. ama ye mama fleur de bal. ama tey nee la tey open press bi gars yi xaar leen ñu Modou Lo nanu xaar keneen ak keneen nanu xaar ndax roi des arènes la amul leneen. eh. sa sa sa copain lu mu xarit la kan waaw waaw waaw Pape Sarr dañ ko bàyyi nag waaw ah, dañ ko bàyyi waa Parcelles ñi koy tooñ ay El Hadj Diouf kooku noonu di wax yooyu nag Pape Sarr du moromu kooku Pape Sarr promoteur ah daaw lu muy daaw lu mu nekk si dëkk bi quoi waaw lu mu écarné si dëkk bi yaa ngi nag uuf ñëpp Pape Sarr du def lu ñaaw yaa ngi nag du waxee lu ñaaw Pikine bi ñuy wax ay Pikine A B C yooyu noonu yëpp ñëpp la yemele Pape Sarr ñëpp la yem ku si am làmb rek da nga naan Pape Sarr kii mooy mbërëm ñun ñëpp ci loolu lañ ko xamee yaa may dégg ñun nag bisu ama bii nii ñun ñu ngi siy woo ñëpp ci jàmm yaa may dégg pour man ama dafa bëri de lu mu namee noonu lan la dañu ragal wala la du loolu kese loolu mooy ama mooy ku ko bëgg ama dafa toog lu yàgg bëriwul képp ku ko bëgg pour man ku bëgg ama muy dëgg si yow Modou Lo ko sànni xeer bu tuuti tuuti waaw doo yàq bës fekkee bëgg nga ama da nga war a ama bëri man bëgg ama la ku bëggul ama nag mooy yàq jéem a yàqal ama ñaanu ma ko yàlla mais lu na yàq ñu bu dee bu ko bëgg yaa ma dégg du keesoo ay lamb yi nii ñu suñu gaañ la suñu lépp la dafa am kóllëre rek baax la ama ako oyof ku baax la laa la wax dégg lu ma la wax moo tax lamb ji nii dañ ko ciy ñaanal laalo essan nii ñu dem ci jàmm la cinq laa la wax daan waa ji ci jàmm mu njibi lamb ji benn yoon lay doon du am du am revanche du am revanche benn yoon lay doon ah ko daanee moom day boo ñaa daan ko da si pare muloo Amadou bu raat ak muloo di jàpp nañ dina ñëw tey boo ñaa bu ñëw ñu tegg nañ leen lépp lépp pikinité bi lo boo ñaawoon ku ko gis xam ne yéen ndam lu rëy la yéen a ama waaw boo ñaaw borom baar ñoom ñaar ay gaañ la ñu war a wax yenn waxi su ñun duñ ko wax waaw ñoom ñaar ñoom ñaar ñoom ñaar a far waaw kuy wax da ngaa xamul nag waaw ñee nag ñooy génne genre ay audio di téema yaa jaxase rek mais ñun piki nañu ñor daal loolu laa la mën a wax dégg nga ci mi ngi noonu ama moo ma yar eh billahi wallahi naaru kan nga naaru ama billahi naaru ama sànq lañ ma bëggoon wat ma daw waaw lu tax nga daw. non si si naa war a. non non demal naa ñu. bëgg xamal waaw ba muy bërëg Ama Mbabat si maire Fonde lañ fekk Ama. yow naaru Ama. barki Alxuraan gars yi yóbbu ko. ante moom mu ngi jubile naan dafa daan dafa daan. bilay lay bi lay noppi. bii dina tëj gémminam xam ne seelu bu ndaw la am. billaay wallaay wax bi nag du bëri ñu ngi ñaan ci yàlla rek yàlla na ko yàlla defal jàmm. mais lii lii lii di open press la mais open press dañu gis ne bu mel ni làmb lan la làmb ji bés bee leen dépassé la. non ama mooy làmb ama mooy làmb billaahi wallaahi azim ama làmb la nee nañ keroog signature bi nangam nangam daa daw kii nekkul kuy daw am na benn paa bu ko foox nekkul kuy daw gàll bi amul ku fiy daw fii laa juddoo fii laa yaroo billaahi moo ma yar te bàyyil ba bis ba la cinq yàggatul incha allahu rabbi si kattanu borom bi ama dina daan Modou Lo incha allahu rabbi si kattanu borom bi. billahi ban ama de waaye nañu may waay Modou Lo. Eh, eh, naar daa bëri wax Modou daa bëri wax wax yi la fi am billahi kii mooy ama bu sonko loolu mooy dagg seen xol kii mooy ama bu sonko seetlu bu ndaw ñu ñoo ko suddee seetlu bu ndaw. ko bëgg ama ko tuddee ama bu sonko. ah ko bëgg ama sonko. bëgg léegi am na ñoo xam ne xaar am na ñoo xam ne Sall ba pare bëgg Ama léegi kon noo leen def kan ñu bëgg Macky Sall bëgg Ama noo leen daa am ñu nekk ci Macky Sall bëgg Ama ñooñu soxloo ñu leen fi tey lan soxloo ñu leen fi loolu daal leer kii mooy Tapha Gueye numéro 2 mi ngi noonu suñu am na ko ñuy wat xoolal moom dañ koy wat moom dañ koy wat ku nekk ni ngay ñëwee ci wat gi ku nekk da ngay am ñoom dañu koy yëg rek ñëw ñu wat leen am ñoom nee nañu bàyyi ba suba ñu wat leen gis nga Ama moom watu na staff bi watu nañ moom ñu ngi noonu di ko wat gis nga mi ngi noonu gis nga mi ngi noonu moom la ñuy wat noonu ndeysaan sëy làmb lii ndax ay di yéex yow kii nii ko jox salaatu alay mi ne noo mi loolu la ñu wax barki Mouhamed lamb bu defee deux minutes ma teere sama bakkan fi ma ko de dafa wóor booy bi ñemewul te damay ragal sax euh, est-ce que combat sax dina am ndax lu lan du am moo dafa delloo avance barke non xam na li mu gis booy bi dèjà moom nee na ko moom bu xamoon ne que ni moom Modou Lo nii la mel du ci def li mu ci def dèjà boo xam nee na 1000 francs te pourtant xooloo da koo xaw sax oyofal mais barke mu xamet du ko jara sax muy génn di kii nii day jé génn rek des fois rek benn ngoonal nii mu génn rek daf benn njaabam saaru njaabu golo yoo noonu dikkaat du jar kii Mohamed Mohamed grand même ma jël ko après maa lay Mohamed sa waay mi ngi woote noonu boo ko defee ko gisee ñu ngi nga xamante ni voilà mais image yi moom duñu duñu continuer di ko filmer nag quand